Macky Sall a réussi son ak bien est-ce qu'il a bien calculé son coût son, son coût oui. bon bu fekkee ni coût bi c'est boo xam ni c'est pour rey la démocratie c'est pour torturer la la constitution on peut penser effectivement que teg na ay ay jéego yu ko yu ko fi andi mais xam nga bon damay faral di wax dañuy faral di wax quand on essaye d'expliquer l'inexplicable c'est qu'on se prépare à excuser l'inexcusable am na situation fu muy toll de mon point de vue on doit pas chercher à analyser les causes lan moo waral ak loolu parce que quelque part day mel ni comme si quand on entre dans ce jeu-là qu'on essaye après de légitimer mm-hmm. wala di am benn compréhension bu ñuy am par rapport à une situation dafa mel ni rek langage élément de langage yu ñu bëgg a commencer gëmloo. Mhm. mooy bu buñ ko naree reporter dans un an ça veut dire rek déjà kon ñun accepter nañu le report. c'est ça. Hmm? alors que est-ce que bu ñu ko reporter est-ce que du laajaat est-ce que ça dire que ñun kon accepter nañu le report le report. alors que ce report en aucune manière waruñ ko mën a accepter parce que aujourd'hui xam nga. damay faral di wax hier j'ai pris un exemple je disais à quelqu'un ma ne ko boo amee sa entreprise nga moomal ko sa bopp nga créer sa entreprise nga moomal ko sa bopp nga jël un directeur général nga ne ko un an laa la may nga liggéey après un an damay damay damay mën naa choisir keneen wala ma bàyyiwaat la fi mm-hmm. un an bi jot am ñeneen ñu soumissionné pour remplacer ko mm-hmm. ka yor ka nekkoon directeur bi daan ne moom demu day toog <laughs> yow mi ko moom nga bëgg indexer bëgg ak créer un débat entre qui téye entreprise ak ñiy soumissionné hmm. c'est ça qu'on est en train de faire vouloir ki ko moom. mooy le peuple mooy le peuple. Hmm. vouloir entretenir un débat. Hmm. entre ki nga xam ni moom nga dénk sa yëf. n'est-ce pas ne ko un la la may un bi sama yëf maa ko moom. léegi moom nee na. mais moom nee na un boobu da koy day yokkal boppam. da koy yokkal boppam. pour après woo la yow nga ñëw ca la. léegi nag yow non waaw yow bi ko moom sax yow tu te tu dis yow mi su yow mi soumissionné pour remplacer ko. Mhm. xam nga yow jël ko yow. parce que les opposants les candidats dañoo soumissionné pour remplacer. Mhm. le pouvoir. Mhm. donc pour remplacer le DG. E. yow mi moom nga ne donc yow nga toog. bëgg seetaan ñoom ñaar. ñuy ñuy waxtaan di dialoguer. Mhm. non moo tax affaire bi avant d'être comme l'a di hier d'ailleurs notre président l'a dit Déthié Fall avant d'être un problème politique c'est un problème de citoyen mhm. ce sont les citoyens ñoom ñoo joxe seen bat kiñ ko jox ñu jox ko àpp ne nii ak nii lay dem àpp bi jot kañ ko jox ne du ko ba day mhm. dolli c'est ça le problème donc ñoom seen bopp ñoom ñoo wax am seen fulla ak seen fayda ne même yéen ñi soumissionné pour que yéen toog leen fële wala ngeen dindi seen casquette politique ngeen ñëw comme que citoyen ngeen en même temps ñu ànd ñu xeex mbir mi